mbirum drogue la ñu tege loxo ki ñuy woowee Pablo baax bu Dagana te këram lañ ko fekk daal di koy jàpp ci weeru février bële ñu génn ba léegi nag ñi ngi amal ay recherche ngir teg loxo ki nga xamante ne moom mooy ab dealer yor réseau bu mag di yëngatu ci wàllum trafic chavre indien fële ca wàllo maanaam di yëngatu ci mbirum yàmba muy wuyoo ci turu Seyni Meng jabaram ñu teg ko loxo gannaaw ba mu dawee gendarmerie bu Dagana di ko wër dañu wàcc nag ca këram daal di koy bett moom moom ñuy woowee baron de l'Orvar wala sax Pablo Escobar du Waalo teg nañu ko loxo. seeni Mbengue nag ci ay jafe-jafe la nekkoon loole nag juróom-ñetti fan ci weeru février ba léegi bile dealer nag nekk mbokk benn politicien bu mag bu nekk fële ca diwaanu Dagana gendarmerie doon ko wër waaye nag gendarmerie bu Dagana daal nay nag mujj démantelé boobee réseau yëngatu ci mbirum trafic de drogue fële ca diwaanu Dagana ñu amal ab opération ca këram teg ko loxo moom monsieur Mbengue mu daal daw bi les situation tax ba ñi di gendarme yi daal jàpp ki nga xamante ne moom mooy jabaram ak kenn ci ay jegeñaaleem laata rek ñuy teg loxo lim bu takku ci li nga xamante ne moom mooy yàmba ñu mën ko nag xayma ci lu ëpp ay téeméeri téeméeri kilogramme. teg nañu loxo tamit li nga xamante ne moom mooy ay wotoom. teg nañu loxo tamit ki nga xamante ni moom mooy jabaram waaye taxul benn yoon mu daal di ñëw bile situation nag tax ba ñi di gendarme yi wéyal seenub liggéey bu ñu sukkandikoo ci ko xamante ne jigéen lool bi bile dossier ñi ngi xam xamle nag ay moyen logistiques yu màgg lañu génn ngir mën a teg loxo ki nga xamante ne moom mooy seeni Mbengue jamono ji daal dinañ koy def moom moomee ñuy woowee dealer bu màgg bi nekk ci région de Saint-Louis brigade de recherche bu Dagana mujj na ko teg loxo ca këram ga nekk ca quartier Dar es Salaam lañ ko fekk ba ñu saytoo nag benn ci ay këram la ñuy di gendarme yi nag teg loxo lu tollu ci ñetti saag yoo xamante ne drogue la def maanaam sinébar weeru février ba la génn ba léegi ñu ngi ko doon wër dem nañ sax ba teg loxo ñenn ci ay jegeñaaleem ak yenn yoo xamante ne nag am moomeelam la waaye nag mujjul woon anto bu ñu sukkandikoo ci ñenn ci askan bi ñu nga xam ne ni Seyni Mbengue ab grossiste la dafa doon dugal fële nga xamante ne moom mooy ca diwaanu Saint-Louis Dagana Richard Toll ba ca sax fa nga xamante ne moom mooy ca diwaanu Fouta lu ëpp ay téeméeri kilogramme wala sax ay tonnes ci li nga xamante ne moom mooy ay produits prohibés bile trafic moo tax mu yor yile koppar loole tax ba mu am bile alal am na nag kër yu bari yoo xamante ne daf ko tabax mu mel ni ay château ay woote yu takku lool ba ci sax li nga xamante ne moom mooy ay bus yoo xamante ne dañuy def transport en commun maanaam ay horaires yuy daw Dagana dakaar am na ay moto taxi Jakarta yu muy jëfandikoo nag ngir mën a jàllale ay marchandises am kenn ku nekk ca diwaanu Waalo mu ñu ko xamal bile di leer nga xamante ne nag def na ñaari yoon kaso nekkoon na nag koo xamante ne kenn mënu ko cerner ñii di policier nag ay yoon yu bari daf leen di rëcc. a teg loxo gi ñu ko teg loxo nag dina tax mbirum trafic yàmba fële ca diwaanu Waalo daldi soppeeku rawatina nag fii ci diwaanu Sénégal benn su moo ko daldi xamle di fàttali nag ni ki nga xamante ni moom mooy Seyni Mbengue dugg na sax ci wàllum politique fële ca diwaanu Waalo bile arrestation nag maanaam teg loxo gi ñu ko teg loxo askan bu Waalo nag dañu ci daal di rek féex ndaxte ay yoon yu bëri ñu ko doon boole ngir nag drogue ba muy jaay fële ca diwaanu Waalo teg nañu ko loxo nag waaye enquête ba mu ngay woy loolee suñu nattangoo yu laas ñoo ñu ko xamal.